phénomènes yi ci wàllum mbindeef yi maanaam doomu aadama yi ak yeneen su mel mbindeef yi de manière générale créature yëpp yëpp yëpp ñu ngi ci biir ak euh, àdduna bi li nga xam ne moo fi nekk ci ay ressources li nga xamante ne moo fi nekk ci ay euh, li nga xamante ni ay lu ñu mën a teg loxo lu ñu mënul teg loxo lu ñuy daj lu ñu mënul daj dafa bëri bëri tellement ba ku ci def ay vidéo am di nga def ba ba sonn rek mais du jeex am koo xam nag dafa am idée wu idée bu bu bu bu bu originalu xool yi nekk ci àdduna bi nga xamante ni nit ñi ñi ngi dund ak moom moo xam loo xam ne phénomène bu nekk ci àdduna bi la ci ressources naturelles yi ak yépp waa ji am idée wu di ci def di ci def ay comparaison exemple maanaam mun na jël exemple mu xool ne doomu aadama yi maanaam ban dëkk la nit ñi nekkee dafa la ñuy gën a guddee fan mu xool def ko mu def ay recherche classé ko par ordre def dëkk sàngam ñooy gën a gudd fan parce que seen seen moyenne d'âge egg na tel dëkk sàngam tel dëkk sàngam tel ba mu egg mu def ko vidéo monté ko mais da koy defee noo xam nag euh, daf koy monté noo xam tellement boo koy seetaan da lay ba pare te canal la boo boo koy seetaan da am information ci affaire yu bëri yoo xam ni xamoo ko woon maanaam genre culture général la lay jox voilà dangay am culture générale lu baree bari yu nekk ci àdduna bi loo xam ne yow sa xel sax demu si woon dina ci def vidéo des fois nga xam loolu nu muy doxee xam différencier ci am ak yu demee noonu toujours noonu lay def par exemple am na vidéo bu doon boo xamante ni euh, kii la jël euh, maanaam produit yi nga xamante ni dañ leen di sànni muy mbalit yi ñaata temps la ñuy durer pour di seey buñ suuloo ci suuf si wala ñu nekk ci géej gi plastique ñaata temps lay def pour disparaître weñ ñaata temps lay disparaître weñu fer ñaata temps lay def pour disparaître mu xool euh, polyester yi ñaata temps lay def pour disparaître comme noonu étape par étape di la wax ne la canette boo ko sànnee temps la temps la temps comme yooyu bu ko defee loolu boo ko seetaanee non seulement daf lay dimbali dangay xam mais daf lay joxaat beneen xalaat ci nan ngay utiliser sa ay sa ay sa ay mbalit wala sa ay affaire parce que li ngay sànni après boo xamee loolu impact bi mu war a def ci environnement bi da koy commencé xam boo sànnee mouchoir mouchoir à jeter ñaata temps lay def nga yëy ci ngom nga sànni ko ñaata temps la mun def balaa muy dis muy seey ci suuf si loolu yëpp yëpp yëpp da ciy def ay vidéo di def ay vidéo ci rabu àll yi def ay vidéo ci euh, jën yi lu nekk di def ay vidéo ci ay taille comparé ay taille maanaam lépp lépp lay def ay comparaison léegi nag mu def ci canal canal bi moo ngi tudd Regaw comparison voilà moom day comparé ay loo xam daal gis nga canal bi te dafa nekk canal boo xam ni képp ko xam maîtriser nga montage nga am culture général genre canal bi boo ko defee mun nga ci réussir mun nga ci am xaalis ci long terme moom kañ la commencé def ay vidéo ñu dem à propos boo xoolee mi ngi commencé def ay vidéo le 12 septembre la ubbi canal bi mille euh, douze septembre 2013 la ubbi canal bi 2013 suñ demee ba le 12 septembre 2023 canal bi am 10 ans canal bi kon manqué na ko presque deux deux ans et demi wala trois ans pour mu mat 10 ans defagum na joo xool yi nga 472 millions 823 mille 557 vues la defagum bi mu ko ubbee ba léegi. boo ñëwee ci euh, liste video yi euh, description bi gis nga dafa def rek boo ko ji nga traduire en français ji nga lu mu lay defal. dafa def euh, comparon les tailles la vitesse le prix ou quelque chose d'intéressant maanaam loo xam ne yitteel na nit ñi daal lay jël mu def ci ay comparaison pour nit ñi xam si loo xam ne xamuñu ko woon li nga boo ñëwee vidéo gis nga vidéo yaa ngi nii yi muy def mii nii ci sujet yëpp lay def ay comparaison voilà di nga fii mi ngi ñëw ci ay dinosaures la ñëw boo xoolee fii gis nga am wàññi son bi tuuti parce que ji nga comparaison lay def ji nga bu la defalee benn rab dégal la beneen rab gis nga mu bindal lu tur bi bindal la par exemple ñaata million comme yi dinosaures yi la yi fi amoon te xam nga dañ ne amoon na fi ay jamono bu nekk mu bindal la du mu tudd bindal la ñaata million d'années la la am gis nga boo defee benn bu ne nga xam voilà ay xeetu rab yu bari yoo xam ne amatul ak gis nga yi yi moom yu existé ba léegi moom am na bien sûr que dañ ko classé ci catégorie yoo xam ni genre yi la woon dinosaures yi mais ba léegi am mi ngi am gis nga façon yi dinosaures yi amatuñu waaw gis nga ni koy defee waaw lii nag graphisme la il faut nga am logiciel en général nag nekkul logiciel montage vidéo yi lañ koy defaree ñi nga xamante ne peut-être nañ ci canal bi peut-être te 3D am nañ ci tuuti xam-xam waaw maa ngi leen di wax lii mën nañ ci lancer wu ñi nga xam tam xool nañu intéressé na leen te peut-être xamuñu 3 des wala yu demee noonu ñu dem euh, jàngi logiciel 3 des ñu war ci YouTube am na ñoo xam ni ay logiciel 3D yu ñu utiliser dañ ciy def ay formation gratuitement di ko def euh, ci euh, ci ci internet bi loolu logiciel yu mel ni ay SolidWorks mu nekk ay logiciel graphisme yoo xam ni 3D la lay indil trois d maay mooy bool affaire bi da koy defar ba pare te du nekk comme dëggantaan virtuel la mais jëmm ji ak forme yëpp day génn voilà du mel ni image bu bu plat rek comme 2D nii quoi non non de dafay jël forme forme form li nga defar loolu nag dafa am ay logiciel spécial yoo xam ñoo koy defar buñ ko defaree ba pare dañ koy def ay euh, li nga xam ne mooy ay vidéo am na logiciel yu am doole yoo xamante ni euh, par exemple ñiy defar entre yu mag yi yi nga xamante ni dañuy euh, yiy defar ay ñiy defar ay conceptualiser ay ay ay loo xam ni lu kii la luy am jëmm la ay objet lay nekk comme ñiy defar ay oto wala ñuy defar par exemple ay siwo ay paan exemple daal ak ñi defar ay kopp ay bideel ñoo ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp entreprise yooyu yëpp am nañ koo xamante ni moo leen gérer lii muy seen production trois d conception trois d wala ñoom entreprise boo xam ni dafay bu fekkee amuñu ko seen biir euh, entreprise dañuy dem jëli benn agence boo xam ne dañuy def ay wàllu wàllum conception suñu soxlaa dara ñu dem ñooñu defaral leen conception trois d bi avant machine yi di ko mën a muule wala ñu koy mën a euh, kii nu koy waxee di ko mën a euh, imprimer même mi ngi mel ni oto yi 3D lañ koy defaree ba pare soo ko def lépp loo gis mu am forme léegi bala ñu koy defar dañ koy defar 3D ba ba ba xam mel na ni ko bëggee. ñu soog ko nag dem produire ko physiquement ah logiciel 3D moo tax dafa am importance tellement tellement importance sax mënoo ko xam soo fekkee demoo sax nekk ci monde 3D wala nga def ci ay gëstu tuuti quoi moo tax daal fekkee mën nga logiciel 3D am na boo ci maîtriser maa ngi lay wax lii euh, te euh, thème la boo xam ne boo ci lancé woo di am na ay opportunité léegi ñu xool moom euh, nu mu tudd rythme yi muy dugalee vidéo bii mu ngi dugal ci nga 4 4 4 jours la def bii def na une semaine bii ak bii sorante wuñ à peu près mais gis nga bii mi ngi ko dugal trois semaine soo dugal bii gis nga trois semaines bii mu ngi ko dugal un mois la def bii un mois bii nga deux mois parce que day sorante léeg-léeg mu def une dëkkal dëgg vidéo moom deux semaines soo ko dugalaat vidéo parce que lu tax parce que vidéo yi daf ci am benn benn yoo xam ne su yi nga am 3D la koy defaree logiciel 3D parce que dafa am yoo ni logiciel 3D nga koy defaree exemple comme euh, yi xaa ma ma exemple nga gis comme yi logiciel 3D lay wut waaw pour defar ko waaw logiciel 3D comme SolidWorks mun nga dem jàng ko mais bu fekkee logiciel 3D day compliqué mun nga rester rek ci comme type vidéo yi nga xam da koy def defee ko logiciel montage voilà am na yoo xam logiciel montage rek lay jël comme bii exemple ñu xool bii lan la def ñu nga population statistique yi la lay jël dëkk par dëkk ak seen population waa yi moom logiciel montage yi la ngay defee rek simple na voilà gis nga dëkk bu mu dugal is nga bindal la seen ranking bindal la information yi defal la carte bi defal la jënga si kaw seen euh, nombre euh, probabilité voilà gis nga nii la koy def dëkk par dëkk après nga def ko muy défilé nga def dëkk par dëkk voilà dëkk yi nga bëgg dugal yépp bu doon Europe nga def nga dugal dëkku Europe yëpp après nga ñëw def beneen vidéo def dëkku Afrique yi comme noonu voilà exemple comprendre nga j'espère gis nga ara ñëw nombre de vues yi nga gis xoola waaye nag say di nga euh, moom am na euh, lu ëpp un million euh, si ay abonné waaw nga xamee ko noonu tamit ay abonné am ëpp nañ un million abonné gis nga bu vidéo bi ñu nga 4 jours la ko dugal 398 000 la am voilà gis nga bii mi ngi ko dugal euh, une semaine deux millions ji nga 800 voilà li ko seetaan sax ëpp na nombre abonné parce que day am ñoom vidéo mi vidéo des fois dafay am importance ba da nga koy seetaan seetaanaat ko parce que tellement day am solo vidéo yi am solo lay dugal bii lañ ñëwoon woon je crois xaar xaar ko mu ñëw si ballon yi nga size ballon ballon yi ñuy yi ñuy defee sport yi waaw seen différence yi ñuy am ci kii yi nga size yi la lay la lay la lay expliquer quoi nga bal ping pong golf gis nga am ni yii bu dee comme yu mel nii looy sel 3D moom lañ koy defaree voilà gis nga bal tennis différence yi la lay won taille ni ñu ëppantee bu nekk bindal lu trop bindal la dimension bi muy am voilà gis nga moom daal genre vidéo yi mooy vidéo yi nga xam ne moom lay defar ko voilà comme ni ma la ko waxee rek am na yu si ëpp am na yoo xam ne ay logiciel trois d la koy def am yoo xam ne logiciel montage mais de toute façon bu la intéressé moom canal la boo xam ne bu am bu am kii la te moom boo amee am na loo xam te mun nga ko seetlu day def ay video mais vidéo yi du commenté voilà du commenté day def rek teg benn son après euh, kii di ñëw ñu xool bi bii mu ngi def politiciens yi ak euh, affaire euh, politique ak vote yi lay def comparaison fii voilà yaa ngi gis nii voilà son bi maa ko pause voilà mu ngi nii gis nga xam nga lii defar ko difficile seulement leen rek la laaj mooy da am nag culture générale wala nga ñemee gëstu parce que vidéo yi pour nga koy def il faut nga parce que information la il faut ngay gëstu pour mën ko def loolu la ñi nga xam nag du ñu ñeme gëstu duñ ko mën foofu la problème bi rek nekk mais boo ñemee gëstu lu nekk nga dem di ci def ay gëstu am ci information maanaam bu yaatoo yaatu mën nga defar tibb vidéo yi te canal la boo xam ni kanaal yu am avenir la parce que li tax mu kan tubbu kanaal bi am solo mooy li ngay def nekkul luy xeew yi nekk loom da nga ko def ni mu nekk à la mode suba ginnaaw déedéet information nga fi joxe yoo xam ni à vie la fii ak YouTube mi ngi exister canal bi di exister nit ñi nekk fii ci planète bi seetaan YouTube sa vidéo yi da leen di intéressé parce que sax dañ seetaan loo xamante bu yàgg la amoon xamuñu ko woon ñu seetaan say vidéo xam ko ngay comparer loo xam ne mosuñu ko woon xalaat ñoom ñu nga euh, euh, nga def ko tax ñu ñu mën ko xalaat am ay information yoo xam ni amuñu ko woon ci loolu. léegi euh, ñu ñëw ci boo ñëwee fii ci inform ci à fi ñu jugoon nañ ci sànq. boo ñëwee gis nga fii def na fi Instagram am Twitter am Facebook am mais fii def na fi site internet boo cliquer site internet mi ngi ñuy yóbbu fii ci site am léegi nga boo ñëwee ci sit internet am site internet bi lan la fa def benn pase page crowdfunding la fa def crowdfunding mooy lan ay site internet la yoo xamante ni ñi ko defar dañoo permettre su nit créer benn affaire te amul koo ko financé amul koo ko jàppale te daf ko bëgg a développé mu ñëw ci site bi inscrire fi présenter produit am wax projet yi mu ci am fi mu ci toll yëpp joxe information daal yu mat sëkk ci affaire bi pour ñi mu intéressé ñu bëgg ko dimbali ñuy cotiser pour dimbali ko pour mu réaliser projet boobu loolu mooy crowdfunding ay sites yu bari la am na yu am yu bari yu si àdduna bi yoo xam dañ koy def am ci yu fiable am yoon nag fiableul mais am na yu mag yu fiable yu ci am léegi bu ko defee nag projet bi dangay ñëw def ko en détail bu ko defee day am ñu la financé moom site bii mu dugal ci ci euh, kiom sitam bii mu dugal ci euh, canal YouTube bi crow crow page surtout crowdfunding la dem def fa campagne campagne bi la def foofu ci place internet bi boo xoolee gis nga mu demande gis nga euh, ñi nga xam da nga koy soutenir su dee bëgg nga participer waaw vidéo bu ne nga joxe ci un dollar wala vidéo bu ne 10 dollars yi nga wala vidéo bu ne 100 dollars yaa xam maanaam daal système la rek boo xam ni kenn ku ne yaay xool boo duggee fii nga ne ah, man dinaa ko jox un dollar waaw vidéo bu mu defati ma jox ko un dollar vidéo bu mu defati ma jox ko di dollars vidéo bu mu defati ma participer ci 100 dollars pour jàppalee ko ko voilà noonu la gis nga détails yi surtout Corofane bu ko defee mujj wane vidéo yi muy def mu def leen fii bind ay détails ci projet bi mu ci am idée yi mu ci am ak euh, ni mu ko bëgg a doxalee gis nga def fii page bu mag woo xam ne yu bëri yoo xam ne da ciy def ay comparaison voilà gis nga yi vidéo yu mu def la mi ngi ci kanaal bi def ci ay photo wane ni day comparaison yi nga fii ay bouteille la la indil ay <laughs> plastique yi ñuy defar comparé gis nga fii mu ngi la indil ay genre ay euh, vaccin yi la contre ay feebar ak ay rab yooyu defal la ci ay comparaison yu bëri lay def léegi nag dafa bëgg nit ñi jàppale ko ci loolu pour projet bi mu ci bëgg bëgg recruter ay euh, ñoo xamante ni dañuy nekk ñoo xam ne ay designer la ñuy nekk ak yooyu ñu koy liggéeyal pour muy defar vidéo yu gën a bëri yu gën a am solo pour mu gën a amal nit ñi njëriñ waaw ah, moo tax mu lancé crowdfunding bi pour ku ko bëgg jàppale voilà loolu mooy affaire bi léegi day ñëw fii ci social bi leen ñu xool moom ci euh, AdSense bi ci euh, YouTube à peu près ñaata la ci war a mën gagné mais nag te bul bul fàtteelu te bul la gagné ko ñoo ngi ne la depuis 2013 moo ngi nekk ci youtube bi la ubboon kanaal bi nekk ci tëwo bàyyi waaw loolu nga koy bàyyi xel ñun nag Sénégal fii des fois loolu moo ñuy të nekk ci benn affaire calculer ni dama ciy nekk ba ba ma ciy réussir waaw même bu ma ci réussir tey wala suba wala ginnaaw suba moo xam mais dinaa ci réussir dama ciy nekk ba réussir loolu mooy suñu problème ñun dañuy bëgg comme ni ma ko doon waxee toobo saxal mbaa mu sulli waaw bëgg a ji léegi mu sax léegi nga te mënul nekk nit dama nekk ci benn affaire bëgg ci réusit il faut danga nga ciy nekk sonn ci ba réussite fekk la ci waaye kanaal yi nga xam dañuy judd tey màgg tey toujours dee suba la ñuy def waaw loolu moom ngeen xamee ko noonu léegi gis nga boo ñëwee fii mi ngi la defal dina gagné chaque weer entre mille dollars ba 63000 dollars voilà mais man ci sama ab estimation yaakaar naa canal bi parce que xam ñëw nañ ci ay yoon wan leen calcul yi ñu koy defee moo tax duñu ñëwaat fii di ko def di répéter même chose quoi mais mais mais man yaakaar naa dina gagné 4 bii mën ko multiplier par euh, par 4 muy 16 à peu près mën na gagner 16000 dollars par weer lu tax parce que boo tegee fii ci ci ci euh, point d'interrogation lu mu la indil ne la CPM bi nag ñoo ngi ko calculer basé wu ci bu fekkee waa ji publicité mii da koy générer ci mille vues yu mu am da ciy am 0,25 dollars ba mu ci am 1000 vues yu nekk 4 dollars su fekkee dina am 1000 vues yu ne dina ci am 4 dollars dina gagner 63000 euh, dollars. su fekkee 1000 vues yu nekk cinq centime la ci am moo ngi gagné kon 4000 dollars te man jàpp naa waa ji comme canal bi canal anglophone la ji nga drapeau boo xoolee canalu États-Unis la mi ngi nii États-Unis la pays yi ko ëpp ñu koy seetaan pays anglophone yi la parce que vidéo yu bëri des fois boo nekkee pays francophone sax duñu la ko présenté léeg-léeg yaay dem def ay recherche peut-être léegi comme dëkku anglais ñëpp lu ñu koy seetaan foofu seeni CPC day man jàpp naa minimum 1000 vues yu mu am dina si am 1 dollar. su fekkee mille vues yu nekk dina si am 1 dollar kon lii dañ koy multiplier par 4 lu tax parce que vingt cinq centime soo ko multiplier par 4 ngay soog am 1 dollar kon mën nañ ko multiplier par 4 mu nekk 4 fois 4 16 la kon jàpp naa minimum moom war na mën gagner 16000 dollars ci canal YouTube bu dee monétiser na ko nii te monétiser na ko jàpp naa ko 16000 dollars war na koy mën gagner waa ci li nga xam ne mooy AdSense voilà bu daan woon ba daan dina ñëw 10 000 dollars voilà. te te xam nga ne loolu c'est bien nga nekk ci mbir di ci liggéey liggéey ci lu mat 7 euh, ans wala 8 ans nga atteindre montant bi xam nga loolu am na liggéey yoo xam boo koy liggéey fixe boo fa doon def 40 euh, ans nekk ci service yi sa salaire du yo du yokkoo noonu du yokkoo yokk yokku yi demee noonu voilà. mu nekk li nga xam ne moom la ñu social blade jox information ci à peu près li mu war a mën a fayeeku voilà mais nag bàyyil xel toujours lii estimation la estimation la voilà estimation la. parce que mi ngi dépendre ci canal bi ndax actuellement mi ngi monétiser su dee mi ngi monétiser war na mën gagner lii loolu la la social bi lay di wax parce que démb dafa am ku ma doon envoyer message ne ma waaw sama canal bi après man maa ngi doon gagner cinquante gañe naa fa cinquante six dollars léegi nag mais sama monétisation bi daa am ba léegi nangoogul ndax YouTube dañ ne euh, dafa am ay comme vidéo yu ma jël moo tax mënaguñu activer sama monétisation bi ndax léegi bu ñu activer sama monétisation bi xaalis boobu dama koy man nag man mu jaaxal ma ma posé ko question man ne ko loolu ban xaalis ngay wax parce que da ngaa woon YouTube démoné nga amoon loo jot a gagné 56 euh, xaw ma ma 56 la waxati dollar si diggante bi wala euh, nu mu demee parce que man comme danga nga ne da nga da nga demandé monétisation YouTube accepté gu ko nan nga def ba gagné 50 et quelques dollars yi. waaw waaye nag mu ne ma non damaa dem ci kii site boobu social kii bi ma xool ko bi ma ko xoolee ma gis fa sama kanaal bi gagné na 56 dollars. ma ne ko non foofu nag génneewul li nga gañe foofu estimation lay def moom canal bi monétiser nañ ko ak monétiser wu ko xamu ko yoonam newu si day jël information yi mu am ci nombre de de trafic bi ci am ci site bi maanaam canal YouTube bi ñaata vidéom la ñuy seetaan ci weer wi loolu lay jël mu calculer ko su calculer mu diviser ko par mille jël montant bi gën a tuuti muy 0,25 ne la su dee yaa ngi am 0,25 nangam ngay fayeeku su dee yaa ngi dem ba 4 dollars nangam ngay fayeeku li tax mu nekk euh, estimation ni am na ñoo xam ne dañuy dem CPC ba cinq dollars ba 6 dollars sax day am ah, cinq dollars man gis naa ko ba 6 dollars day am kon kooku xam nga mën na fayeeku lépp 63000 dollars kii am 5 dollars par 1000 vues ki nga ak fii Sénégal ñu bëri seen canal yi ay 10 centimes lay gagné par mille vues waaw Sénégal fii vingt 99 pour cent canal yi nekk Sénégal soo koy monétiser mille vie yi yaa ngi ciy am à peu près 10 centimes. kanaal yi ëpp 10 centimes jëm kaw benn benn lañ mais majorité bi di centimes la jam moo tax boo fi defee kanaal boo xam ni yëf lu Sénégal dong dong la concentré wu pour nga am ci xaalis bëri muy jafe moo tax toujours mën na leen da ngeen di créer canal comme seen li ngeen bëgg a def di canalu Sénégal mais dee leen créer yeneen canal yoo xam ne ci yeneen thème la ngeen koy def yeneen dëkk pour boo koy demee ba koy monétiser nga ci mën a am xaalis boobu day conséquent loolu lu tax lu ko waral parce que publicité yi nekk ci internet 70 pour cent yi. tubaab yi ñoom ñooy ñoom ñooy fay di def publicité internet suñu dëkk yi publicité internet site yu ra pour nga dugg ci internet gis kuy publicité mu nekk Sénégal publicité daw sa vidéo mu nekk Sénégal jàppal lii ma la wax en général bu nekkul Jumia la ñoo di lancer publicité campagne yi publicité YouTube wala mu nekk Orange ñaar yooyu daal boo leen jàppee en général doo gisaat beneen compagnie bu fiy def publicité ci ngay seetaan vidéo rek benn publicité daw mu nekk publicité Sénégal te mu te nekkul uh, Jumia nekkul Orange c'est très rare te li ma wax ne yaa ngi seetaan nekk ci YouTube di seetaan xool ko bu baax seetlu ko bu baax. vidéo yi ëpp yi daw vidéo tubaab bi la vidéo bi ëpp lu daw mooy campagne WordPress yooyu ak yu demee noonu ak yeneen vidéo marketing yi tubaab bi te yooyu seeni borom dañuy def ci seen campagne yi su fekkee Afrique lay daw tuuti lañ ci nangoo fay bu dee parce que xam nañu africain dañuy seetaan seen publicité te duñ jënd seeni produit mais dañuy bëgg rek produit bi siiw ci àdduna bi produit bi am ba am am am am ampleur ñu bàyyi muy daw des fois dëkk yëpp mais dañ naan bu dee dëkk ay Afrique yeeg ay dëkku Asie yeeg dëkk yam daal jënduñu dañuy def tuuti lañ fay nangoo fay ah YouTube YouTube moo leen di loolu ne leen montant yi bu dee zone tel montant mu ndaw ngay fay bu dee bu dee Europe na comme dañuy jënd te Europe ngay defal publicité mu wax la ah fii kat lu seer laay fayee ko ndax gars yi dañuy jënd nga fay lu seer boo ko fayee lu seer nag Google YouTube séddoo ak yow loolu muy séddoo yow day bëri moo tax nag boo ñëwee boo yoree canal boo xamante ni pour États-Unis la waa États-Unis ñoo koy seetaan ak canal boo xam ne pour waa Europe la Europe di ko seetaan ak canal boo xam ne pour waa Sénégal la Sénégal di ko seetaan ñu tolloo nombre abonné ñetti canal yëpp tomb tolloo nombre abonné tolloo nombre de vues yi ñuy am par weer sa canal bi nekk Sénégal mën nga ciy gagné cinquante mille francs wala vingt cinq mille par weer ñoom fa la ñuy gagné trois cent wala quatre cent mille francs par weer voilà parce que li ma noonu moo ciy joué muy publicité yi ak zone de ciblage yi loolu loolu foofu la problème bi nekk te dafa bëri itam campagne publicité tubaab yoo xamante ni ñoom dañuy segmenté def seeni publicité bu mu daw Afrique moo tax suñu vidéo yi fii yi waroon daw yëpp du ci daw ndax am na ñoom seen publicité dañuy sélectionné parce que booy def kab bu dee mës nga def publicité ci Facebook yooyu xam nga ko da ngay sa publicité dëkk yi la neex lay feeñ dëkk yi la neexul fa feeñ am na ñoom nag bu ñuy def publicité nekk France di jaay produit boo xam ni France lañ koy jaayee lancer ko campagne YouTube dañuy segmenter publicité bi def YouTube bu ma ko waneel fenn fudul France kase wala waneel ma ko France ak Belgique kase parce que dañoo gis ni ñoom produit bi ñooñ ñoo koy jënd ñooñ la intéressé comprendre nga j'espère bu dee États-Unis noonu bu dee Allemagne noonu bu dee beneen dëkk noonu nga xamee ko noonu loolu nag mooy joué ci CPC muy xaalis bi nga xamante ni coût par clic yi nga xam ne dañ koy am fii ci suñu dëkk Afrique yi moo tax muy wàcc par rapport ak tubaab bi li ñuy mën a gagné léegi nag loolu li nga koy mën a régle mooy toujours ubbil canal Sénégal c'est bien waaye ubbil canal boo xamante ni da nga koy def kanaal boo xam ne pour waa France la kanaal boo xam ne pour waa États-Unis la minimum nga am ñetti canal ci sa ci sa ci sa YouTube bu professionnel boo ko bëggee nekk fii ci Sénégal moom bëgg ci di am xaalis bu normal di nga ubbi minimum benn canal bi nga pour waa Sénégal la di nga ubbi yeneen ñaari canal yoo xam ni pour dëkk yi fay publicité yow xaalis la waaw loolu conseil bu ma lay jox la boo am tips la bu ma lay jox boo xamante pour nga yokk li ngay gañe la voilà sa vidéo yi wala boog bu dee euh, am nga abilité dégg nga anglais loolu mun nga see def ay vidéo normal wala dégg nga français loolu mun nga see def ay vidéo normal sa canal bi nga xam ne yaa ngi koy def vidéo yi nekk en wolof bu fekkee yow yaay defu xam nga nag ñu bari seen canal yi yi defuñu ko waaw créer benn canal pour ay vidéo TikTok wala créer benn canal pour ay vidéo dem copier ay comédie jàmbur wala créer benn canal pour affaire buzz wala xam nga canal boo xam ne yow maanaam nekkul li vidéo yi ci nekk yaa koy def mais ñi nga xam ne canal yi nga xam ne ñi nekk ñoo koy def mun nañ def canal boo xam ne dañuy koy def en wolof def dupliquer même canal bi bu ñu defee vidéo bi ñu tra defaat vidéo bi def ko en français def ko ci canal français bi bu dee ki dégg anglais maîtriser ko mu def ko en anglais def ko ci canal ak titre yeeg description yeeg miniature lépp nga def ko 100 pour cent anglophone wala francophone pour nga am maximum de vues dëkk yi nga xamante ni fa la xaalis bi nga ëppee gën a bëree ci wàllum publicité voilà loolu tips la yoo xam ni comme toll nañ ci ñu waxaale leen ko benn yoon parce que ñu bëri des fois da leen def souci montant ñi gagné du bëree ni mu war a bëree parce que lañ leen doon wax naan leen 1000 vues yi boo ko amee nangam ngay am tey gis nañ am nañ 1000 vues amuñu loolu leeraloon naa ci koo xam ne ba léegi bëgg nga xam 1000 vues nu mu demee yi yiñ ciy wax rumeur la ci li li ci nekk rumeur ak li ci nekk dëgg seetaanal vidéo bi feeñ fii flash bi nekk waa lien boobu soo seetaanee vidéo ba mu jeex nga ñëwaat avance vidéo ba mu toll fii lien bu génnee nga cliquer ko di nga di nga xam loolu nga dem ci canal bi nga wër vidéo bi ma def mille vie 1 euro wala 1000 vues 1 dollar nga seetaan ko léegi entre parenthèse la woon loolu bu ñu jógee léegi social lab euh, social blade bokk social blade damay juum rek di ko wax social lab social beneen site la ñu tëj ko léegi lii mooy li nga xam ne mooy top secret lundi tay bi mooy vidéo comparaison waaw ngeen xam ni ñu koy defee léegi nag lii nag vidéo bi daa am lu mu laaj li mu laaj lan la mooy dangay def ay recherche voilà bëgg nga def comparaison ci benn sujet dangay dem defi ci ay recherche ba nga def comparaison fii par exemple ci euh, affaire pays fii comme bii fii demal jëla sa temps dem sa meilleur xarit sa meilleur xarit moom pour def ay recherche pour bëgg xam lépp loo bëgg xam ci àdduna bi toog fi nga toog xam ko internet la voilà loolu moom bu ci sax sonn nekkul da dem ji lire ay livre dafay déedéet internet la internet mooy moyen bi gën a gaaw pour nga xam loo xamul woon bi gën gaaw internet la te nan nga koy xam mooy da ngay laaj comme ni ngay demee ci benn mag nga laaj ko dara loo xam ni daa amoon dém yoo xamoo nga laaj ko pour mu wax la ko internet noonu la fi nekkee nekk ci ay ruq yoo xam ne yow mënoo faa dugg internet am foo xam ne amoo fa accès internet xibaar yooyu yëpp mu dajale ko yow da ngaa bëgg xam ñëwal nga laaj internet tàppeel ci google google mooy sa meilleur xarit pour laaj tàppeel ci google li nga bëgg laaj mu génnee la wax la information yooyu nga jël nag di noter di di copier fee di copier drapeau dëkk yi nga dem wëri drapo dëkk benn par benn dëkk par benn dëkk li ca boo ko tàppee des fois bu dee information pure et ngay wër soit nga dal ci Wikipédia wala nga dal ci euh, WikiHow voilà Wikipédia wala Wikihow ñaari site la yoo xamante ni information pure et dure lañ lay jox voilà su ko defee nga jël image u euh, drapeau yi nga ñëw benn bu nekk defal ko fiche am normal nii def ci drapeau bind après défilement nga koy def jeex na waa li si des affaire logiciel de montage la voilà comme ni ma la ko waxee logiciel de montage normal la image vidéo wala bu dee beneen système ba moo gën a compliqué boobu logiciel 3D la mais boobu nag bu dee maîtriser wu logiciel 3D mën ngaa bàyyi boobu nekk ci bii ba ba ngay maîtriser loolu waa vidéo tey bi lii la woon muy vidéo top secret lënd tey bi nan ngeen di mën a gagner xaalis ci YouTube defar canal boo xam ne ci wàllum comparaison lay yëngatu ngeen dem wuti information ci ciseaux yu bëri yu bokkul sujet sujet bu nekk nga dem jël ci gëstu ji boo gëstu bu xóot am ci information yi doy xool leen lu si li ko wutaleek moroomam nga def ci vidéo monté ko defar ko ba mu normal nag soxlawul nga ciy feeñ soxlawul nga ciy wax li ngay def mooy monte ko def ko musique de fond image nga defar ko def ci information bu doy nga xam ne ku ko seetaan li ñu ci war a xam yëpp dina ko xam loolu mooy vidéo top secret tey bi kon ñu leen di sant di leen gërëm di leen jox daje ci wàllum vidéo top secret ba lundi bii di ñëw incha allahu rabbi jërëjëf